jërë ngeen jëf mbokk internet yi dalee leen nag jàmm mel na nag kooke di njiitum réew ma la ko dese rek si bopp réew mi daatawul bëri daanaka rek ñeen fukki fan ak ñaar rek ñu ne moo ko dese rek si bopp réew mi moom kooke di njiitum réew mi laaj bi gën a mag jamono ji ñëpp di ko posé wuy question di ko xaar ndax kooke du Bassirou Diakhar Faye Ousmane Sonko dana leen wàcc wala duñ leen wàcc question boobu saa su ne das nit ñi di laaj lu bëree bëri mu dox si diggante kooku di Ousmane Sonko Bassirou Diakhar fay ana kan lañ leen di uh, bàyyi ñoom ñaar uh, ñooñe uh, kookee di njiitum réew mi nag ñu si bëree bëri di xaar rek mu daal di organiser ay élection yi nga xamante ne si na rek du romb lak la 3 mars wala sax le 10 comme ñooñee waa F24 nan koy sàkkoo bëgg kookee di njiitum réew mi daal rek organiser la nga xam ne moo di ay ñi ñu daal di say ah, dem balaa rek ab appam di jot ndaxta rek ab appam bu daal di jotee kookee di njiitum réew moom ay mbiram dafay jaax rek si bopp ah, réew mi moom kookee di ah, Macky sal Ousmane Sonko Bassirou Diakhar Faye ba tey seen libération nit ñi di ko sàkko nit ñi di ko xaar ginnaaw nga xamante ne si ne ay détenu politique yu bëree bëri moment bi ña nga leen di ah, bàyyi di leen di ah, libéré. ana lan moo waral libéré googu ba taxit ñu si bëri bëri di wax na ko kii di Ousmane Sonko war na ska mën a libéré jamono jooja nga xam ne ña ngay libéré ña nga xam ne moo di détenu politique comme moom nam ka sàkko na na libéré rek bépp détenu politique boo xam ne ma nga sa biir kese ba pare moom ñu koy doog a libéré moom kooku di Ousmane Sonko di ak sàkk téefam moom nag ñu bëree bëri di nga xaar jamono ji ak génnam bu génnee ba réaction lay amee wala nag naka la kay population bi di ko accueillir wala nes la koy gunge ndax ak génnam yaakaar naa soxal na patriote yu bëree bëri ba tax na ñi ngi koy xaar si ay mbir yu bëri moom kookee di Ousmane Sonko nam bu ne nekkul bu candidat kookee di basir Diakhar Faye mom la joxoñoon mu doon candidat ba tax na ñoom it nga sa liggéey bi di amal seen po campagne pour coalition Diomaye président